asalaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey dañoo ñëw fii ci Tivaouane gis ngeen ko taw bi depuis démb ak léegi ni mu bare mbokk yi gis ngeen ko tey dëkk bi fépp taa fi nga xamante ni mooy Jidda fi nga xamante ni mooy Koulingidiane ak ci ginnaaw kër Serigne Mansour bi ci diggante jàkka ji ak fi nga xamante ni mooy euh, salle de réception bi président Diop nag ak waa CPGE yëpp ànd ñëw fii tey indi fi ñaari oto yu mag ngir vider li xamante ni mooy ndox mi ngir population mën a am fu mbokk yi gis ngeen ko suba ba léegi noonu la ñu nekkee oto yi gis ngeen leen oto yaa ngi noonu mbokk yi di def li nga xamante ni mooy di manque di tuur yi fële nga xamante mooy ci bassin de rétention bi tey nag ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mooy Mansour Mbengue di doom ci Diop si waaye aussi bokk ci responsable yu mag yi nekk ci PGE euh, tey ñu war a waxtaan ak moom ci li nga xamante ni jëf ji borom sabadoot bi jëf fii ci Tivaouane lan moo ko waral Mansour ñu ngi lay nuyu laa ñu ngi lay fay bu baax waaw bon li ñu la bëgg a laaj rek mooy jëf ji nga xamante président def mu baree tey ñu xëy xëy ko waaw El Hadj di sant yàlla bu baax. Mm-hmm. lii li ko waral nekkul si la première fois. Mm-hmm. xëy na ndox mi Sénégal gépp gis nañ ni démb ba léegi ci ay gox mu ngi taw surtout Tivaouane. démb si une heure wala deux heures ba léegi mu ngi taw euh, ñu yeew gis euh, mbedd yi kenn mënta jaar biir am na kër yoo xam ne kenn mënta sax génn pour dem marché job euh, si ni na envoyé ñaari oto pour ñu ñëw commencé dégager fi nga xam ne fi la nit ñi jaar war a dem si jàkk yi war a doxi seen soxla ñu commencé si ginnaaw salle réception bi foofu si jumaa ñaari jumaa sëñ Babacar yi si la xaaj maa ñu commencé foofu jóge fa demoon Jidda ñu ngi nii coulé di vide ndox mi lenn rek la jafe-jafe bi nga xam ne actuellement ku ne nawet te ndox amul fu mu jaar ak assainissement bi pour loolu moo tax Diop si envoyé euh, oto pour ñu ñëw pour liggéey actuellement. yaakaar naa ne c'était pas la première fois ngeen def ko dafa mel ni at mu jot ngeen def ko quoi lan da ngeen koy continuer di def wala da ngeen fas yéene jàpp ci li nga xamante nii waa Tivaouane ci caniveau bi est-ce que par exemple waxoon ak président Diop si mu jàppale ñi nga ñu defar ko est-ce que loolu doon woon gën. waaw xam nga lii hélas euh, tey di dañoo dellusiwaat. xam kon ki del si am na lu mu jotoon a def avant tey tey dafa teew rek ndox mi nekk ci nekk si produit de ndox mi mais ñu ngi si social yeneen yoo xam ne du ndox mi nekkul si nawet si leneen xëy na day am yoo xam ne bu ñu dabee rek ñu taxaw euh, nekk si loolu pour affaire canalisation bi nag moom actuellement euh, Diop si mu ngi si yàgg na si wax pour nan lay def ba suqali Tivaouane si canalisation moom nag lim si mën xaaru si kenn mu ngi si ndax lim si tolloo dooleem tolloo ko si euh, mu ngi si mooy fu mu tawee mu indi ñaari oto wala lu ko ëpp sax ñuy vider ndox mi li nga xam ne nag mooy eh, état li nga xam ne ñun moom lañ koy demandé si li nga xam ne moom la mën ti Tivaouane canalisation bi moom am na problème bu a baax a baax mm. mais en tant que conseil municipal président commission euh, environnement ak li nga xamante ni canalisation bi ñuy defar fii Koulingi Diagne nag nga ko gisee ak ni mu tawee ni ndox mi bari waaw élage euh, canalisation bi ni ma ko gisee ak euh, en tant que conseil ma nekk président environnement et fii si mairie Tivaouane mm. liggéey bi yaakaar naa ne ñoom démarré nañ ko si ni nga xam ne moom nañ ko waxee liggéey nag doo si mën a sori si buñ la si boolewul mais actuellement fi mu toll nii euh, liggéey bi daal élage hmm. si bu dee si wàllu maire hmm. wax dëgg yàlla du ma si mën a sori. en tant que président commission environnement. en tant que commission assainissement ah, environnement a sori. mbokk yi ñoo ko déggandoo gis ngeen ko mu ngi noonu Mansour Mbengue nee na pour le moment mënu cee sori mais daal mënoo ñoo wax ba xam est que liggéey bi liggéey bi nga xam ne mooy baax daa mooy oto yi ma indi fépp fu ndox am bu soobee yàlla incha allah taala dinañ ko jël sunu kéemtalaay kàttan na nga xam ne moom la yàlla def ñu mun ko mm-hmm. actuellement fi ne ñu ngi jël mu ngi taw mm-hmm. duñ arrêté mm-hmm. dañuy jël rek ba wàcc jot chauffeur dem tëdd noppalu mun xëyaatee nekkaat si incha allah taala jërëjëf mbay Mbengue mbokk yi gis ngeen ko loolu la Mansour wax président commission environnement et assainissement loolu la. yónnee oto yooyu ngir ñu dindi li nga xamante ne mooy ndox mi Omar lan nga wax ci président Diop waaw di ko santaat di ko gërëm parce que fii mu ñëwee nii ma wax dëgg yàlla soxla nañ ko. parce que sonn nañ torop torop torop. Hmm. amatuñu woon fenn fu ñu taxaw. kër yi gis nga yëpp fees nañ mbedd yëpp fees nañ. Hmm. lii moom dañ koy ñaanal yàlla wér fan wu gudd. ak sutura. Hmm. gis nga booy yi koñ yi ñëpp. ñëpp kontaan nañu wax dëgg yàlla waaw. waa El Hadj moom nii la mel rek. waaw maire def na nag waaye nag wax dëgg yàlla lii nag dañuy woo ñëpp Ablaye Ndiaye Ngalgo maire rek képp ku nekk autorité ci dëkk bi rek. ñoo xam yi sonn nañ. waaw ñuy jaajëfal ñëpp nag. d'accord d'accord Omar d'accord Omar a baax merci beaucoup. mbokk yi waaye ñu ngi toog ak ki nga xamante ne mooy Pape Malick Diop moom aussi bokk ci ñi nga xamante ne ñoo yor communication CPG bu Diop si président nga gis tey li nga xamante ni moom la président Diop si def fii tey ci Tivaouane indi fi ay oto yu mag a a mag pour ñu vider li nga xamante ne mooy ndoxum Tivaouane nga ciy wax waaw salaamaaleykum El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci opportunité bi ñu may pour ñu wax parce que ku ni Diop si ni Tivaouane yàgg yàgg yàgg na xam ni teranga teranga la mos seq ak waa Tivaouane hmm. lépp luy problème Tivaouane guddeeg bëccëg mu ciy taxaw waaw ba tax na loolu kon tey du nit guddéet ñu ko ci sant di ko gërëm rek xanaa encore ah, di wa xam naa di wax rek ñaax ñi nga xam ni wax fa dëgg yàlla ñoo yor problème Tivaouane parce que dañoo dugg ci problème bu nga xam ni problème inondation la mhm. inondation dëkk bu mu am mhm. day jëm kanam mhm. bu ñu ji auto solution day jëm day jëm kanam te bu jëmee kanam dina gën a jur a impact xam nga ni post bu mel ni kuli bii tey fii ñu jàkkaarloo tey mooy endroit bi gën a dangereux haute tension yaa ngi ci suuf xoolal ni ko ndox mi a tey tey fii bu fi jëyee amee ak ñaata fii li ko wër yëpp quatre concessions ñoo wër euh, poste courant bi tey jii ñaata xale ñoo fi woo tey tey dañuy mënuñu waruñoo xaar ba catastrophe am ñu war a réagir xam nga ba tax na bu nit jógee pour defar dañoo war a xam ñun Tivaouane ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp xam nga ak lu ñu toog critiquante lu ñu waxante lu ñaaw tamit bu dee ñooy tasee waxtaan pour Tivaouane pour intérêt Tivaouane mm-hmm. kon war nañu war a lépp mm-hmm. pour defar pour Tivaouane ñu jàppalante pour Tivaouane mm-hmm. mais dafa am loo xam ne dañ koo weesu loolu moo ñu tardeel mooy affaire affaire partisan affaire ay intérêt politique bu nit jógee di defar pour loo xam ne dafay jëriñ dëkk bi nañ ci jàpp jàppale ko ñëpp doon benn je crois loolu mooy loolu mooy kii bi loo mënul nag nga joxe ko ñu def ko moo fi am solo xam nga moo moo gën nga yor loo nga xam ni mënoo ko defoo ko bawoo kenn def ko tamit loolu vraiment franchement ñuy ñaan ñëpp rek ñu œuvre à ce que parce que fi mu toll nii nekk ñu ñuy dundee inondation yi Tivaouane début la mm-hmm. te gis nañ la xew yëmbal gis nañ la xew Pikine ak fan mujjee ba nit ji di génn di dëkk ñu ne ñu doxal ñaan ñu yàlla loolu nag kon mieux vaut ñu teel a jël les décisions mhm. euh, jël les devant pour euh, pour régler problème inondation bi. jërëjëf Pape Malick Diop mi chargé de communication CPGE waaye mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV ñu ñëwoon fii tey doon leen indi li nga xamante ni moom la Diop si borom Sabador bi indi fii ci Tivaouane du nu na koo def. mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu te du ñu bàyyi nag loolu la waa CPGE wax ne nan du ñu bàyyi tànk ndox mi jeexul fii ak nawet bi di jeex muy taw ñuy indi ndox mi di ko di ko di ko ngàcc di ñaan yàlla aussi waa Tivaouane yëpp inondation yi jeex fenn muy fii ci jaan muy ca Jidda muy ca kër Cheikh aw Balla muy feneen ak feneen ak feneen kër xaaleg ñëpp ñu ngi leen di ñaan lillahi wa rasuli yàlla na yàlla barke lépp yàlla def affaire bi jeex ci barke yonent bi alxaaji mbég dib ak mam ndox ci bi jërë ngeen jëf